lan nga ñuy wax si Gana Gueye ah Gana Gueye moom li ñuy wax ci moom moom ak yarul rek la ñu mën a wax ci moom waaw ah, parce que moom vraiment amul problème waaw kenn masu koo dégg ci dara masuñu koo àtt ci dara li ci des nag moom suñu borom bi fu mu la teg rek moom ala kulli yàllin foog nga jaar fa waaw lii moom xam nga football moom dafa dellu si dafa ñëw rek waaye li nekk ci moom suñu borom bee ko def ci moom waaw dañ koy ñaanal rek yàlla dëgëral taxawaayam dégg waaw may ko defal ko jàmm waaw ak salaam voilà. ndeysaan kaddu rafet na yaay booy yaay booy gànn gànn dem dem ñëw indaale ndam waa naa ñëpp génn. waaw ñu kontaan rek suñu doomu frère la donc xale bu baax bu yaru mu nekk fierté réew mi aussi nest xale bu baax donc sant yàlla macha di ñaan yàlla sàmmal ko boppam laax fu yàq àggul ñaan yàlla daal. defal ko jàmm ñëpp a kontaan réew mi ñëpp a kontaan yéen a ko wax xol yaa ngi féex macha allah loolu la macha suñu tante xol yaa ngi féex.